région Bawol bi wala département mbakke bi euh, waaye balaa boobu ñu fàttali leen ne màggalu sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ naa gi muy def sant Sëñ Abdu gi muy def ca Tuubaa Mboora jàpp na ko samdi bii di ñëw mu di ko amale ca Mboora ñu koy amal ci ndigalul sëriñ Siidi Mbàkke xalifab Seex Abdu Lahat Mbàkke waaye ci kilifteefu sëriñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Abdu Lahat waaye sëriñ ji li ren ji moo doon onzième édition tombeek la onze ci weer wi ñu nekk mu ciy sàkku teewaayu ñëpp nag mbokk yi tey taxaw seetlu bi ni ma ko waxee ci waa APR sax mën naa ne waa APR gépp sax mën naa ko sëf ñaar ba mu des euh, président Macky sàll ak ki ñuy wax euh, Abdoulaye Abdoulaye déggal ki ñuy wax euh, ministre intérieur bi nu mu tuddati sax kii Antoine Diome dama gis ne waa APR daanaka seen campagne bi ñuy def wala politique bi ñuy def dafa mel ni Ousmane Sonko la ñuy campagnal président Macky Sall mu bee ba ma xam ne li ko dale ci Ahmadou Sall Amadou Amadou Ba ba ci ñi ci desaat ñëpp Ousmane Sonko la ñuy defal campagne ba mu des ki nga xam ne moo di Antoine jom gis nga di wa campagnal nit di tudd keneen loolu promotion la promotion communication te boo xoolee président Macky Sall euh, man de wax dëgg yàlla loolu waa ji di wax leminu ma singooru ma maa ngi ci Bamba su wotee jotee ma woteel ki ma neex dellu ci bàmba waaye dama yëg ne nit président Macky Sall li mu fi def man mii dong su ma toogoon di ko waxal bilan yaakaar naa ne li des ci sama dund li ci ëpp lépp dana fi jeex ndax président Macky Sall moom. képp koo xamante ni ku ku bëgg réew mi nga wala ko xam réew mi fi mu toll woon at yi di nga xam ne moom bu dee ci wàllu liggéey ci matière loolu moom def na ko ci ci ay tëli ay forage courant lépp loo xamante ni daanaka loolu ñoom buñ ci nekkoon suba gu jot ñu xëy di ci wax du tax nu jeexal mais seen plateau yépp yu télé yi Ousmane Sonko Ousmane Sonko nangam Ousmane Sonko moo wax lii dafa respecté wut kilifa Ousmane Sonko day saaga xale mi dañoo def nangam du bokk ci kii justice bi dinañ ko aar def nangam yooyu du mbiru politique politique da ngay wax li nga xam ne moom nga def nit ñi mën a ubbiwaat seeni bët ñi yor ay bët ubbiwaat seen bët mën a xool li fi président def wala ñu ubbiwaat seen xel mën a settantal li fi amoon ak li ko tax gis nga boo gisee xiif boo gisee darajay darajay euh, lekk am solo mooy xiif a ko ko def mooy xiif gi nga xiif lu yàgg mooy soo lekkee ci ngay xam ne ndekete xiif ndekete lekk am na valeur am na valeur gis nga lii ñuy def dañoo xamut communication gis nga yonante bi sallallahu alayhi wasallam bi ko suñ borom yónnee daanaka mën na ni ñi jullit ñoo ko defal promotion promotion yu baax lañ ko defal ndax ñoo doon wax naa léegi nan la ñuy def pour yàqal ko gis nga pour yàqal ko pour defaral sa bopp moo gën maanaam li ngay coono bi ngay am ci ngir yàqal nit am ko ngir defaral ko sa bopp ak fi nga nekk loolu mu gën bu ko defee yow doo perte mais ki nga doon yàqal mën naa am doo ko yàqal far la nga waroon a defar yow dootoo ko mën a defar nit ñi bàyyi la mooy dañ doon wax naa yonente bi eh, bu nit ñi dikkee wax leen leen ni leen la wax leen ni leen dafa wéru dafa tàggu sagom wax leen leen ni leen num tuddati eh, poète la xeet yooyu yëpp ñu ko doon wax loolu wax jooju ñu ko doon wax day tax nit ñi di gëstu borom xel yi di gëstu ni waa ndax kii leen wax jibar la wala du jibar Euh, ndax kii euh, poète la ñu ne ak ah, kii du poète ndax bu doon poète alxuraan jii mu yor lii mbirum yàlla la ndax bu doon poète lii mënuñu ko mënuñu lii ñun ñii nga xam ne ay arab lan mënuñoo indi alxuraan lu mel nii. loolu day tax nit ñëpp bàyyi Ousmane dama gis tey sëñ Modou Mbacke Bara Dolly sama sëriñ sama xarit ànd ak ñenn ci waa <laughs> APR ñu ne dañuy def euh, Ousmane Sonko dafa war a ñëw fii Mbacke le diis ñu ne ñoom dañuy dikk ngir jéem a defaat damaan pour def foofu meeting man jàpp naa ne loolu damaa jàpp ne ñoom waa Mbàkke gi wala waa Touba gi dañoo xamul mer mi leen président Macky Sall meral loolu wan na leen ko ci bi mu màggal si jéemut a recevoir kenn bërki démb ñëwaat na fii di teg si ci ci université bi jéemu la gisee benn kii maanaam loolu li ma jàppoon ne mooy loolu président Macky Sall Touba gi rek li mu fi liggéey jàpp naa ne génnoon bi mu ne day ñëw ngeen dem teeru ko génnoon même bu fekkoon ne kii teerul ko sëñ bi ganam loolu même bugg sëñ bi joxe woon ndigal du ko bañ ngeen teeru ko en tant que président génn ca boppu buntu dëkk ba teeru ko wane ne li mu def bu ngeen dikkee jàllale seen message engagement yi mu fi jël ak li mu fi defagun Touba hôpital beeg yeneen yooyu moo gënoon a far mais bëgg Macky Sall dégg leen li mu leen di dégg def leen day xam ne rek yéen ñi am na lu ngeen ko lalal waaye du politique APR yàpp naa ne campagne yu député yii fi jàll lim fi def ci alal yàq gópp ma ne def na ko fenn te man Touba gëw ma ne ku ko fi mën a gañeel amati na fi ndax man li ma fi gëm ah, ku mel ni Baye Alla Sylla da laa xam ne mii dëkk saam bu ci amoon lu bari mën naa am du fi gañe waaye dana fi dalal xel xam nga politique loolu la politique dañuy wax ne politique pilis la waaye du moyen mais fii sëñ Modou sax lé gaaruwaale na ko ci biir nee na ñoo xamante ni bu kii jotee nga mën leen a jot bu kii jotee ñu fay seeni kii jéemunoo défendre dara sëñ moodu mi moom daanaka waa kër sëñ Baara li wax na ko bu ñuy tudd politique faaw ñu tudd li fi mu toll damay wax ne moom moo fa des fi mu toll ci carrière politique te mi ngi koy jeexal si dafa mel ni mi ngi àgg ci atam yoo xam ne day jeexal si carrière politique ndax politique euh, bu xoolee ke ci des sëñ Seex ak euh, daanaka politique am jeex na. beneen bi ci desaat mooy ñoom buñ leen buñ jéemee dem ne dañuy kii dañuy yëngatu rek nit ñi fàttaliku leen te buñ leen fàttaliku dañ leen di fàttaliku nu mel ni picc moo xamante ni euh, picc muy sab la nga picc muy cuuj bu jàng sab buy sab noonu <laughs> mënta tàngal kii loolu la leen nit ñi di fàttaliku day wane ni ñi ñoo fi nekkoon ci jamonoy politique ndax Touba li ñu leen fi def ci victoire yi at yi yëpp moom jàpp naa ne da yàlla waroon ngeen a changé beneen système politique lu wuuteeg da ngeen di yëngal miti nag da ngeen di def ay kéeg yooyu te sëñ Modou wax na ne Ousmane song loolu wax doon na mitin fële am na kàddu yu mu fa wax yoo xam ne ci sëñ bi la ko jëmee ndax ñun xam nañ sëñ Mountakha la ko jëmee beneen bi ñu ngi waajal kas rajab mosuñu koo gisi tamit ci barabu sëñ bi yooyu yëpp sëñ bi du caaga nag saa bu buñ koy def dañoo war rek walla <laughs> ak nit warul yëkkati kàddoom nga di ko jëmale ci sa kilifa surtout kàddu ya yow ginnaaw yaa ngi koy ñaawlu bul ko jëmale sa kilifa jàpp ma ne wax dëgg yàlla kàddu ya Euh, yan fa dégg bu fekkee yi ma dégg bokkut ak yi sëñ Modou dégg de ma fa dégg de mu wax de yàlla euh, xam naa wax na fa de ne yéen yéen a ma doon wax ne da ngeen a bëgg ndigal dangeen di laaj ndigal xaar leen dinaa leen jox ndigal ndigal nag moom euh, kilifay diine yi lañ ko daan séentoo bu demee ba kilifay politiciens yi man koo am loola luñ liggéey benn bi ci desaat boo xoolee Ahmadou Ba mi en tant que ministre premier ministre seen mitinu barki démb bii nga xam ne ñu ngi ko defee fii ci Pikine nga xam ne li ci ëpp lépp ci eh, Ousmane Sonko la doon wax doonte tudd tur man damaa jàpp ne eh, amatu Ba moom it carrière politique am day jeex te yëgu ko ndax fi mu toll Macky Sall dugal na ko foo xamante ni mooy premier ministre am ji mën naa am du àgg mandat bi te saa bu jógee foofu bàyyi ko la muy def mooy jéem a créer ji fi boppam te bu boobaa day fekk ne nit ñi gis nga Idriss Seck kan moo ko blessé kan moo galfal eh, ba nu mu tuddati Bamba Bamba Fall kan moo ko rëppeel kan moo gal kee nu mu tuddati Moussa si mairie kii ba tey ji sax dégg naa Ousmane nga di fa dem di seeri mairie parcelle ba kan moo gal eh, nu mu tuddati eh, ay ñoom jaañ fada ak ñooñu ñooñu man xuma ba jaañ fada ñooñu ñooñu ban kii lan ban rendement lan mën a amal président Macky Sall hmm? ay Farba Ngom ak yooyu yëpp tey jii waa Pador ña nga fay def seen réunion waa Pastef yi ña ngi koy def yii yëpp day wane na Ousmane Sonko moom campagne am bu yeboo mu bañ cee sonn te ñoom jàpp naa ne fële fële ñu ne dañ fay jéem a ànd di fa def demande pour euh, jéem faa mitinal euh, Macky Sall jàpp ma ne Macky Sall la xam na buraar boobu fa la ubbee woon ay waaye leer na ko ne feesal ko sax moom xam ne ne yombul te booba régions yëpp ay ñëw waxantuma laa ne bu nee waa mbakk yi ñoo fa bëgg a def ak waa Touba foofu moom jàpp naa bu ngeen fa demee ne <laughs> loolu day gën kii sax day gën a day gën a wane seen xar kanam ci dëkk bi ak ni leen dëkk bi kii man daal jàpp naa ne li gënoon a kii mooy fi mu toll xoola Idriss rek kan moo koy tuddati kan ban ka ban carrière politique moom Idriss Seck nii ngeen ko doon def daanaka yéen a ko gënoon a mën a may par promotion saa bu Idi waxee lu mat fukki gone jóg tontu yéen saabu bu Ousmane Sonko génnee wala kenn génn ci moom ngeen jóg yéen ñëpp seen discours ci Ousmane Sonko la kii daanelee kee daaneel loolu du problème pro mag Sall moom lu ko waaye mën a waxal man mosuma dégg sa Ousmane Sonko critique ko ci lool ne ko liggéeyoo déedéet xanaa kay dangaa faral say partisan danga sis sis bi nangam ci xeet yooyu wala sa gaa yi ñu ngi sàcc alal ji yooyu laa dégg mu koy wax waaye liggéeyoo loolu moom Ousmane Sonko bu juumoon ba wax ko sax ñi bokk ko sëf ñu naa ko déedéet président Ousmane Macky moom liggéey na moom demal ci pont bi muy bëgg a ubbi fee ca côté kii yooyu ngeen waroon a concentré wu di ci politique mais di topp Ousmane Sonko guddi Ousmane moom Ousmane yow moom boobu nga tëdd campagne moom boobu nga xam ne waa APR ñoo la koy defal ku ci dem ak màggal wala ku ci dem dëj ku ci dem ak takk ku ci dem ak njaal kàddu yi muy yëkkati yëpp ci Ousmane songu la jëm Ousmane Sonko la jëm loolu nag wax dëgg yàlla jàppoon naa jëmale woon ko ci président Macky Sall moo gënoon. ak nii ngeen di jéem di éwané ndaw ñi di leen jéem di di di kankuraan Ousmane Sonko def na benn Kër Massar ngeen ne nañ def benn Pikine Pikine di wane ne président ba mbooloo maa ngi fi mbooloo mi nekkuñu fi mbooloo moomu mbooloo mu ngeen luye la da ngeen a luye nit ñi luye bâche yi luye kii yi luye sées yi luye kaar mbooloo moo luye nag luye moom dafa am heure yu muy jeex mais moom moo am solo moom waaye luye moom temps la par temps bu ñu lay luye dañ lay wax ne le dinañ la luye dix huit heures la luye quinze ba dix huit bu 18 nga jotee kooko day dem te ñii ngeen di luyee fi ñu toll ci campagne bi bala ngeen a xam ne ay nit yu la woon ngeen dem ba nu taxaw ci biti élection yi ba dem ci urne yi di ngeen xam ne da ngeen a luyee woon nit ñi waaye moomu leen woon nit ñi nit nag fexe ba moom ko moom nit kenn mënu koo moom sa waaye da ngay moom gëm-gëmam gëm-gëmam mooy li mu bëgg da ngay fexe ba won ko ci lu mu xamut woon bu ko defee dana la bëgg dana la naw te bu xasee ba am ci yow confiance te sa kilifa li nga koy jàppalee mooy foo fu sa kilifa nekkul nga nekkal ko fa maanaam mel ni manga fa waaye yow sa kilifa nekkul doo ko fa nekkal te it bu fekkee ne feeg sa kilifa teewul doo ko liggéeyal loolu day mel ni doo ko liggéeyal nit dafa war a am rendement boo xamante ni noonu xale yi def boo nekkee ci kër yi boo amee njariñ boo tukkee euh, wala nga nekk ci kër gi nekk jéeg boo xam ne nit ku fi am njariñ la booy dikk xar yi ñoo lay njëkk a ginaar yi ñoo lay njëkk topp xale yi ndaw yi ñoo lay njëkk a topp màggat yi ñooy njëkk di la laajte mais su fekkee meloo noonu cim réew wala meloo noonu ci kër na nga xam ne loo def ci plan plan dina ko dindiwaat loo def ci pexe pexe moo koy sulli lii nag mag sàll moom woo mu teel a xam ne bu fekkee day def troisième mandat defu ko xoolal ni ni nu ni nu concentré wu ci troisième mandat bi moo lay wanal ne ñoom li ñuy def sax Sénégalais dañ ci xam ne li ñuy def ñoom dañuy jéem a euh, kii mais amuñu logique sax wane ne troisième mandat lu war Macky sàll la. fi ñu toll koy campagne le mooy dañuy dem troisième yaay sunu candidat yaay sunu kii yaay sunu nangam xam nga bu fekkoon tey Ousmane Sonko dina dem campagne loolu benn trois dina dem dina bokk deux mille vingt quatre benn coono la ci nit ñi amul mais yéen coono bi ngeen ci am mooy wane ne amu leen logique bi logique bi amul logique su ma nee logique bi mooy amu leen dëgg dëgg dëgg maanaa dëgg dëgg ndax seen seen président bi taxaw di président Macky Sall nee na woon du ma dem troisième mandat bu ngeen ma fa séentoo du ngeen ma fa gis <laughs> na xam ne moom 2024 moom <laughs> soreetul moom su fekkee séntu nan ko fa man di séntu moo ko fa xañ na ñàkkuma ko faa xoole te xam naa ne ku dikk yeema ne ma naa nga fa ca troisième mandat duma ko weddi waaye nag séntuwuma bu ma ko fa séenee tamit na ma ko fay séenee laa jàpp ne moo ma du neex li bërëb euh, nu mu tuddati euh, boy ñang beeg waaja <laughs> am nga ñu bari séntuwul woon kii